ay doomam bokk ak waa famille bi mënatuñ koo génnee kon na rafet beneen bi ci des problème kenn du ko dugal ci internet ñaareel ba booy rendre compte wala ngay wax wax ko ku nite ku ñu accepter ak niteem pas nitu mbedd nitu àll pas nit ku torox nga di ko def mais amul raison koo xam ne ci santage rek lay dund jox ma nàngam boo ma joxul nàngam nga ñàkk fayda di fay sa xaalis te dinaa la wax benn affaire nga xam ko tey de amul benn fenkat bu nekk bitim réew buy joxe ay kaa di fen lu dul ni ñi lay fenloo ñu ngi ci réew mi di noyyi maay wax ak yow ku mënta xam lu cee lu lu lu kilo ceeb di jar ci réew mi mën ngaa xam ci réew mi dara mais loo fi wax dañ laa inventé seetlul li ma la wax ñii direct ñëpp di attaqué nit ñi yor naa sa dossier dinaa ci wax suba dossier bi nag li ma ci xam nangam ak nangam fooy lañ leen bindal dañuy liir ñi leen koy jox ñi ngi ci réew mi Sénégal ñi fi waa bitim réew di yàq ñëpp. ñiy def direct ci internet bi TikTok beeg Instagram bi ñu nuy yàq ñëpp liñ leen di yàqee waa Sénégal ñoo leen ko envoyé ñoo leen ko wax ñoo leen fay lii moo fi am allo wax ko nàngam dafa am loo fàtte woon dimb parce que démb seetaan naa la mais bi nga naan nàngam dafa am loo fàtte jox ko nàngam ne ko léegi bii nga ciy dolli rek mu jeex après dolli ci bii neel nàngam wéyu ma maa ngi lay déglu dégg nga ok salaamaaleykum mbokk yi amna naa lu ma war a wax tey dañ la ko wax loo waxal dañ laa fay amul problème defoo dara ku ragal demal nga toog ku bañ ñu la nopil ku bañ sosal la nopil fii ku fi wax dégg dama faale ay saga dee leen wax ak ñu am crédibilité bàyyi leen wili pande seen dundu nit ku tekkiwul dara koo xam ne boo demoon ba tiim ko mook espaket yi ñoo tolloo billahi allazi laa ilaha illa huwa nga nawloo ko di wax ak moom ñii di ko fay xaalis nan ko yàqal ma diw waxal ma ci diw attaqueel ma diw di fay ay million am nit ñu leen représenté Sénégal gii booy fay da ngay mel ni kuy fay ndox Sénélec ak Sonatel da dem ci ñoom ñoom ngay versé ñoom ñooy envoyé réew mi tappet yi mel ni xat ga leen eh, eh yow kër bi yaa ngi dugg ci eh, eh. lu xew ñi leen représenté ñi ngi fii di yewoo ci ndakaaru gii boo amee kaa booy traité bëgg ñu wax ci ñoom ngay dem fay leen ñoom ñoo koy envoyé waat il faut ñu bàyyee loolu xel fii kudul yàlla sa boroom bul ko yëg. bul ko def yàlla yàlla moo fi nekk bu leen ragal kudul sunu borom bu leen faale kudul sunu borom te kat ñiy saagawaate ñëpp nee nañ seen xarit yi ñoo nekk Sénégal bis bu ne ngeen dégg diw sama xarit la diw sama xarit la te seen xarit yooyu duñ leen wax dëgg il faut di la vérité man bu ma nekk bu nit nekkee ca bitim réew di saaga réew mi ak di wax lu bon man mi ngay tudd ne may sa xarit maay taxaw ni la li ngay def du yoon Sénégal boo amee ku lay saagaal rek di la défendre yow ni ci des concer concerné wuñ la na saaga sa adversaire yi na la waxal nit ñi lu bon intéressé wu la loolu moo fi war a jeex fii yàllaa fi nekk segam yonent bi lañ saaga ku bañ ay saaga tëddil nelaw wa baada sabbin wa tadlilin wa tashfihatin axfaw lahu kullama axfawhu min itami boole leen seen famille yi ñiy bokk bokk nañ ba pare ànd mën na am tàqalikoo am du tee jàmm am fa mbokkoo am fa mais éviter leen di weer seeni problème ci internet éviter leen ñu respecter leen ngeen tax yëpp ñu yàpp seen famille yàpp seen famille mooy ku jug di wax avim te famille bu baax ci ngeen bokk famille bu mu mën a doon na ngeen am fulla ñàkk seen bopp ba du xojog gu dugg ci seen famille di wax mais pour lan loolu bu ko may kenn parce que wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham yàlla nee na ëllëg damay laaj mbokk gi naka ngeen ca daan doxee mooy yoral sa puso di ñaw sàmmal deru famille bi parce que am na loo xam ne soo ko defee ka muy retourné ca moom mooy ka ëpp tur ca famille ba walla ka fa mag lolu nit daf koy bàyyi xel benen bi ci dess ngeen juboo sànnante xeer garu walé bi fi xuloo bi fi bagn ko dalé def batay amul benn njariñ te aduna day dox wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naasi yàlla neena na day dox jour yi day wëlbatiku tay man nga dem ba ka nga jàppoon ni mooy sa non yàlla defar ay mbiram ba wëlbatiku muy muy safara sa problème comme ken xamul luy xew ëlëk nak ku yabu di rafetal ci ñépp rawatina ñi bokk famille yàlla na nu yàlla defal tawfiix ñu dem. piir